c'est le président de la République depuis le premier tour de Macky Sall man dama renforcer parti bi andi samay oto ànd ak madame la présidente ànd fii ci Diourbel depuis le président de la République jàppale Aminata Tall bokk ci mouvement yi jàppale Aminata Tall di jàppale Aminata Tall di gërëm Seck doyen bi nga xam ne ni tey moo nekk Aminata Tall dina gunge nekk suñu mag nekk suñu kilifa nekk suñu lépp ñu ngi lay gërëm di la sant ndax tey fu roqee taal nekk sekk yaa nga fa kon sant nañ la gërëm nañ la di wax nag dëkk ko ci poids ñun dañoo nekk ci biir parti pour kër gu mag dañuy défendre kër gu mag man itam Mbacke Tine aw ma dara ci lu may ragal man suma doole laa yor. booy booy sa appareil bi am na mbooloo bi ma àndal nekk fii ci mu daal di liggéeyal président de la république damaa bëgg ngeen fàttaliku kër Aminata Tall damaa bëgg ngeen fàttaliku kër bu ma. bind parti bi leen parce que ñun dañoo liggéey ci parti bi wala jëriñ ci parti bi kon nanu parti bi fàttali président def na li ko war kon nanu waxtaan kër bu ne la mu yelloo ak la mu moom nga jàpp nga parti bi gañ bi amul opposant ñun affaire ñoo amante ci suuf ci cin loolu taxul affaire dem dama ne kenn ku ne na yore say nit jëlantey nit xëccante amul njëriñ dañ leen bokk nday bokk bàyyi nañ leen ànd te xam ne président moom ñor te mën nanoo ànd ndax kenn ku ne la nga yor sa ko ñun bëggante dinaa ci ñëwaat léegi du gudd parce que wax naa ko DG Moustapha tëj na mitin bi kàddu yu gàtt rek laa yëkku yëkkati félicité la encouragé la ci lii nga def lii nga def tey fii ci Mboudaay ci Diourbel présidente Aminata Tall nga ko defal mais président Macky Sall nga ko defal président de la coalition benn Bokk Yaakaar moo tax yow ak ñi nga àndal yëpp ma mën ci ràññee sama jigéen soxna Fat Dame sama rak Youssou Mbow ak ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak yow ci liggéey bi maa ngi leen ci félicité o nom du président la République di la ci félicité di leen ci sant di leen encouragé lii ngeen def rek nii la président Macky Sall wàccoo na ak Sénégal président Macky Sall wàccoo ak Diourbel ñun ñoo ci des te lii nga def nii dafay tudd animation politique c'est vrai que am na engagement yu bëri mais je parce que lii mooy dundal suñu parti mooy dundal suñu coalition parce que tey président Macky Sall li mu def ci Sénégal bërki démb mu wane ko ci Kaffrine Tamba Kédougou démb mu wane ko ci Fouta ak ci Saint-Louis te fan yi incha allah ñu jëm Thiès ñëw Diourbel ñëw Casamance sénégalais yi xam nañ ne président wàccoon ak ñoom te daje yu mel nii nag day tax. ñu biral askan wi fi nga xam ni foofu la président jële réew mi fi nga xam ni foofu la président jële Diourbel ak fi mu ko indi tey c'est important j'en profite pour dire que li nga def animation politique la dajale responsable yi dajale militant yi ñu waxtaan ak ñoom ci li nga xam ni foofu suñu suñu parti foofu la toll suñu coalition foofu la toll ku ñëw fii tey xam ne Alliance pour la République xam ne coalition benn Bokk Yaakaar est majoritaire à Diourbel comme elle est majoritaire sur l'ensemble du pays le reste ñu bàyyi ko ak ñi nga xam ni ñoom ñoo yore wax ji mais nous nous sommes dans le temps de l'action comme ni ko président waxee te réalisation yi xam ni président def na ko fii ci Diourbel ñu mën ci teg la xo ku ko gis xam nañ ne il dans le temps de l'action kon boog ñun ñoo ko war a delloo njukkal ànd bokk ndey bokk baay yëkkatee ndoo ba échéance yu mën a dem fii ba 2035 échéance yu ñu dem ñu jox ndam li coalition Benno Bokk Yaakaar kon boog li nga teg fii ci ci mbudaay tey euh, ibre félicitation gis nañ sa taxawaay ci gannaaw suñu mag président Aminata Tall may nuyu rakkam bi ko toogal fii sama rakk sama xarit Ajaratu Rokhaya Tall di ko yóbbante ci président mag euh, ci présidente Aminata Tall parce que moom xam nañ ne exemple de fidélité d'engagement et de loyauté derrière le président Macky Sall kon boog yéen waa këram noonu rek ngeen mën a mel donc on vous tend la main ñun ñëpp coalition Benno Bokk Yaakaar ñu bokk ndey bokk baay ba saa yu président Macky Sall soxlaa saa yu soxla Aminata Tall soxlaale pour président Macky Sall ñu bokk ndey bokk baay yëkkateendoo doonandoo loolu laa ci bëggoon wax yeneen aspect yi ma bëggoon wax sama rak le DG Moustapha Gaye wax na ko très brillamment maa ngi koy sant di la gërëm di ne féliciter encore di jox ñeneen ñi tous les responsables tous les militants ci yeneen occasion yu mel ni pour ñu mën a waxtaan ak waa Diourbel asalaamaaleykum wa rahmatulah taala